تدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw nuyoo bi ñu ngi leen di ziyaara ci bis bu tedd bi di ñaan sunu boroom mboole ñu jéggal mbooleem suñuy rëcc-rëcc nangul nu mbooleem suñuy jaamu yàlla yàggal kilifa yi ci sunu kanam te dëgëral leen te xiir nu ci nu ànd ak ñoom ca na mu gën a rafete dañ bokk ñu nangul gannaaw loolu waxtaanu tey wi day jokku ci waxtaan yi jiitu woon euh, te jëmoon ci sàmm li nga xam ne suñu boroom daf koy sàmmlu muy sàmm cër yi doomu aadama yi juróom-ñaari cër yi nga xam ne kenn ku nekk suñu boroom dénk na la ko nga war ko sàmm waaye sàmm itam mbir yi nga xam ne euh, diine dafa jóg ngir euh, sàmm ko te mooy bakkanu doomu ak alalam akub deram ak diineem akum xelam suñu mbokk sëriñ Cham waxtaan na ci ci ajuma jële weesu sëriñ Mouhamed Fadil bu Sayid naka noonu kon waxtaan wi day jokk ci waxtaan yooyee tey nag mu gën a jëm ci sàmm derub doomu aadama derub jullit sàmm ab deram ñoŋal ko ci lépp loo xam ne lu koy gàkkal la xam nañu ne sunu boroom subhanahu wa taala dafa teral doomu aadama dafa teral aadama ak i doomam teraanga ju réy wa di ko fàttali doomu aadama itam teraanga ju di ko fàttali bokk na ci teraanga ji mu ko teral bind gi mu ko bind ci melokaan ya gën a rafet xam bu doomu aadama bu seetloo boppam dana gis na ni ko yàlla bindee moo gën a rafet ni mu bindee bindee fi bare baree bari ci ñi mu bind moom la alxuraan di wax laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim ak yaa ayyuhal insaanu maa gharraka bi rabbikal kariim allazi xalaqaka fa sawwaaka fa addalak fi ay suuratin maa shaa rakkabak kon bind gi ko bind ci melo wa gën a rafet gën a taaru gën a mat loolu teraanga la jum ko teral waaye mu ca loolu ba mu ko bindee mu digal malaaka yee ñu sujootal aadama mi nga xam ne ci joojee jamono bindee fii yi war a jóge ci moom ñépp ña nga ca moom mu digal malaaka yi ñu sujootal aadama ngir teral ko ak màggal bind bi ko yàlla bind yemu ca loola mu def ko mu nekk kuutaayam ci kaw suuf bi mu defaree suuf ba mel nii mu mel ceeg na mu gën a rafete malaaka yi sax jàppoon ne ñoom la fi yàlla indi ñu nekk fi waaye mu tànn aadama ak i doomam ngir ñu nekkal ko fi dëkke ko di jariñoo njariñ yi fi nekk di ko dundal tànn googu itam nekkoon teraanga nekk teraanga joo xam ne ju ju rëy la mu bokk ci lim ko la itam ki gën ci ñi yàlla bind muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu boole ko ci xeetu nit def ko nit mu nekk doomu aadama ñu bari itam ci ñi yàlla bind mu jiital doomu aadama ci seen kaw yonent yi aleyhim salaatu wassalaam ñoo féete kaw malaaka yi e, kon loolu teraanga ju rëy la xam nañ nit nit ak jinne la yàlla boole dëkkloo ci kaw suuf boole leen digal tere leen boole leen dikk tëkku leen waaye kilifteefu njiit gi ci nit la ko def mu mel ni nit a jiitu jinne fii ci kaw suuf ba tax sax bu yàlla yónnee ci ñoom ñaari xeet yépp ñoomu mu yónni ci nit la koy tànn loolu lépp di teraanga yu mu teral doomu aadama teraanga jooju nag bi mu ko teralee doomu adama dafa bëgg doomu adama yi yëg ni teral na leen ñu sàmm seen teraanga ji ji leen suñu borom teral ba wax ko ci alquran wa laqad karramna bani aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxri wa razaqnaahum min altayibaati wa fadalnaahum ala kathirin mimman xalaqna tafdila kon teraanga jooju nga xam ne bokk na ca tàggatal gi mu tàggatal doomu aadama suuf si ak lépp lu ci nekk mu mën a dox ci kaw suuf fu ko neex jëm jaar ci jéeri ji jaar ci géej gi jaar ci jaww ji lu mu làmb rek mu nooy ba mu tàggat ba mu àgg foo xam ne ci jëfandikoo àdduna xel dajutoon ne doomu aadama dana fi yàgg loolu lépp bokk ci teraanga ji mu digal nag mu bëgg nag nit sàmm teraanga jooju ko yàlla teral mu bëgg mu sàmm ko ba du toroxal boppam kenn itam du ko toroxal loolu bi mu ko defee nag am na ñooñ ñoom dañuy wëlbati ko toroxal seen bopp te mooy ñi weddi yàlla jaar ci weneen yoon wu bokk te goom leen jaarloo ñooñu moom dañoo wëlbatiku gi leen bi ginnaaw bi leen suñu borom teralee ñu wëlbatiku toroxal seen bopp ànd ak seenum noon muy seytaane waaye li ñuy toroxal toroxal seen bopp teewut am na am na as lëf lu leen yàlla bàyyee ci teraanga jim leen teral fii ci àdduna bàyyee na leen ci aslëf lëf euh, ñu nekk di ko di ko ci tedd donte ñoom toroxal nañ seen bopp ba noppi euh, am na ñoo xam ne ñoom ña góor góorlu ci sàmm teraanga jooju mooy ñi gëm sunu boroom jaar ci nangu topp nangu diineem topp ko di déglu ay ndigalam di bàyyi ay tereem muy jullit yi jullit yi bu ñu ko waxee mooy ñépp ñu ñoo xam ne ñu ngi topp ab yonent ci jamonoom ba ñu àgg ci ki yàlla mujje yoon ni muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon xeetu lislaam bépp ñoom ñoom ñooy góorgóorlu ci sàmm teraanga ji nga xam ne moom leen yàlla teral ba du ñu toroxal seen bopp loolu nag ngir mu mu gën a jàpp ni sunu boroom am na ay ndimbal yu bari yu mu ci defal mooy xamal leen li ñu war a wormaal ba duñ toroxal seen bopp te la ci jëkk mooy nit sunu boroom wormaal na bakkanam waru koo faat wareesu koo faat ci lu dul yoon warmaal na alalam lépp lu dig moomeelam gu moom ci anam gam ko war a moomee sunu borom warmaal na ko kenn waru koo jël maa nga jalgate ko ci lu dul yoon warmaal na ab deram ba lépp lu koy gàkkal wareesu ko ko wareesu ko caa teg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne kullul muslimi alal muslimi xaraam damuhu wa maaluhu lépp irdu jullit dafa xaram ci bokki jullitam ñu jalgate ko bakkanam ak alalam ak ub deram kon yooyu dañ koo dañ koo sàmmul aarlu ko loolu nag ngir ñu mën koo sàmm aar ko mbokk yi waxtaan nañ ci ajuma yi weesu ci sàmm bakkanu doomu aadama ak sàmm alalam war a ñëw tey jii nag ci waxtaan ni ñuy sàmm derub doomu aadama ndaxit nag toll nañ ci jamono joo xam ne jar naa waxtaane ndaxte daa mel ni doomu aadama yi seen der yi joxatuñ ko jenn war ma yàq derub doomu adama ak tilimal ko ak gàkkal ko dafa mujj mel ni lu aayut lu dagan loo xam ne ku ne sañ na ko ci nu ko nu ko nu ko bëggee ak num ko xalaate jalgate gi jéggi daya lool bàyyilu bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn lu ne ña ngi koy ñoo ngi koy ñaawteef bu ne ña ngi koy ña ngi koy siiwal ak a sos ak tasaare ba yegg foo xam ne jéggi na dayo bay yàq bay jur ak yàq goo xam ne gu rëy rëy la ñu war cee dellusiwaat dellusiwaat suñuy xel fàttalente ci soññante itam ci googu wàll wane ni ko lislaam rëyale ak ni mu ko fonkee ak taxawaay bi ñu ci war am ngir sàmm deru doomu aadama tax na sharia al islaamiyya te mooy attey lislaam dikk indi jël ay matuwaay yu bari ngir sàmm deru doomu adama bi ci jëkk ci ciy tudd mooy lislaam sharia dafa araamal ci jullit bi ci boppam moom ci boppam rek araamal na ci moom muy def lu yàqub deram nit ci boppam jullit ci boppam yàlla araamal na ci moom lépp loo xam bu ko defee mu yàqul dara ndax ku ko araamal tere ko ko ngir bëgg ab daram ñoom moo tax ñaawteef yi yàqul dara yépp da ko xaraamal nit ki di ko def lu mel ni njaaloo ak jëf-jëfi góor jigéen ak lu mel ni naan sàngara ak lu mel ni jël yi fi jàmbur ak lu mel ni euh, rey bakkanu doomu aadama ak bépp ñaawteef boo xam ne bu ko nit defee bu siiwee ab deram yàqu rek lislaam day xaraamal ci jullit bi mu def jëf yooyee nga xam ne kon moom ci boppam moo war a njëkk am taxawaay ci boppam ngir sàmm ab deram ba lislaam tere na ko lépp loo xam ne lu yàqu der la tere na ko moom mu def ko loolu lépp ngir bëgg koo jàppale ak bëgg ko soññ euh, ci mu aar ab daram waaye yemul ci loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne inna alxalaala bayinun wa inna alxaraama bayin wa baynahuma umuru mushtabihat la yalamuhunna kathiru min annas fa man ittaqa shubuhaati faqad istabraa li diinihi wa li ardi ka raaci xawla alxima yushiku an yaqa fii nee na li yàlla daganal leer na naññ li mu xaramal leer na naññ am na ay mbir yu ne ci diggante bi yoo xam ne ñu bari xamuñu atteb mbir yooyee ndax lu xaraam la walla déet maanaam loo xam daa lënt ñu bari mu ne waaye yooyee nit ki moom bu xamee li yàlla daganal na ca yam lam xaraamal na ko sori lam amul xam-xam bu leer nag na ca taxawlu uh, ngir sàmm diineem ak sàmm ab daram mu ne képp koo xam ne moytu nga ay moytu ngaa dugg cim lënt yow kon sàmm nga sab dar sàmm nga sa diine te nit ki dañ ko sàmmloo ab daram sàmmloo ko diineem ndax nee dugg cim lënt mi ngi mel ne ab sàmm bu jege suuf suñuy tere ku fa dugg muy sàmm ca wet ga nag ba jur gay róol di dugg ca barab suuf sañuy tere du ko yëg kon am lënt dafa mel ni barab boobu ñuy tere nga xam ne ginnaaw lënt na la xamoo ba xam lu ñuy tere lam am bu ca dugg ndax boo ca duggee mën naa nga fekk muy far lu ñu tere eh, te kon bañoon caa dugg mooy gën kon ci xadis bi dañ ci dégg nit ki dafa war moytu lépp luy tax ab deram gàkk ak lépp luy tax diinam gàkk da ko war a moytu moo tax yàlla xaraamal ci moom ci ay ñaawteef yoo xam ne bu ko defee ab deram yàqu moom ci boppam moo ko war a njëkk moytu daw ko ngir moo war a njëkk a taxaw ci sàmmub deram bi yàlla setal waaye lislaam yemul ci sant nit ki mu taxaw ci sàmm derub boppam waaye dafa sant nit ñi ci des ñoom ñépp it mu araamal ñu yàq deru jaambur ba lépp loo xam ne lu yàqu der la deru nit lislaam da koy xaraamal moo tax lislaam xaraamal jëw te mooy tudd ñaawtee fi nit ci barab bu mu nekkul tudd ko sax ci barab bu mu nekk dañ koy tare rawatina fu mu nekkul wa manau zalika aidan fi lxadar li annu aksaru ayban wa darar sëriñ bi nee na ni ñuy teree ku tudd ñaawtee fi jàmbur fu mu nekkul noonu la ñuy teree nga tudd ko fu mu nekk ndax tudd ko fu mu nekk moom moo yees ndax da am bakkaaru tooñ gi ba noppi tam nag ay yeneen mën a caa topp mooy ay xuloo ki jàppante ki fitna mën na caa juddoo ci boo ko defee ci kanamam kon dañuy moo tax mu tere kon ku tudd ñaawtee fi nit fu mu nekkul te loolu moo tudd jëw mu tere ko ngir bañ ngir bëgg ñoŋal ngir bëgg ku ñoŋal deru doomu aadama moo taxi mu tere tuumaal nit tuumaal asgor su dib jullit su sàmm tuumaal ko loo xam ne bu tuuma ja saxee ab deram yàqu ñu teg ko ci ay daan yu rëy ci lislaam loola lislaam da ko xaramal moo tax mu xaraamal xazful muxsanaati al gaafilaati al muminaat jigéen ñi nga xam ne ay gor lañ di ay jullit nekk ñu aar seen bopp di fegu tuumaal leen njaaloo lu yàlla xaramal la ni nga xamee ne araamal na koy ci tuumaal ko góor moom it góor gu mel noonu loolu bokk boole na ko ci juróom-ñaari bàkkaar yu mag yi nga xam ne day alag nit te mu ñëw ci xadis ci boo ne Buxaari ak Muslim nettali nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ijtanibu as-sab'al mubiqaat wattandiku leen juróom-ñaari bàkkaar yi nga xam ne day alag ku koy def qiila wa ma wa ma hiya ya rasulallah qaala ashirku billahi taala wa sehru wa qatlu nafsi allati xarama allahu illa bilxaq wa aklu riba wa aklu maalil yatim wa tawalli yowma zahf wa qazfu lmuxsanaati alxaafilaati almuuminaat neen mooy bokkaaleeg yàlla cër bi yàlla yeyoo nga boole ko ko keneen boole ko keneen di jaamu maa nga boole ko keneen di ko niraleeg moom ay melo baa ay wàccuwaay baa ay jëf loolu moo jiitu ci yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ci xadis bi lam ca teg mooy ak njabar lam ca teg mooy rey bakkan ci lu dul dëgg lam ca teg mooy lekk riba lam ca mooy lekk alali jirim lam ca teg mooy daw ci bu lislaam xare boo xam ne lislaam jullit yi ak yéefari ñooy jàkkaarloo di xeex ab jullit di ca dawee ca xeex ba wan ginnaaw yéefare yi daw ak mm, tuumaal asgor su dib jullit di jigéen euh, tey ku fegu nga tuumaal ko njaaloo nuñ ko teree ci jigéen ji it noonu nañ ko teree ci góor gi waaye xëy na day gën a diis ci bu dee jigéen kon tere googu mu tere euh, ñuy tuumaal nit njaaloo loolu bëgg ñu aar deru doomu aadama tax tuuma jooju nag ni ñu teree ku tuumaal ni njaaloo noonu teree ku ko tuumaal lépp loo xam ne lu yàqub deram la lu mel ni tuumaal ko naan sàngara sosal ko ko wala tuumaal ko ray nit mbaa tuumaal ko jël alal jàmbur walla tuumaal ko ak njabar diw sàngam moo liggéey diw sàngam baa diw sàngam moo liggéey ab liggéey def ko ca barab sàngam ngir nangam ak nangam kon tuumaal nit ki ak njabar ne moo ko def euh, ak tuumaal nit ay mbir yoo xam ne bu ñu ko ko tuumaalee ab deram ak daru askanam bépp da ci yàqoo bu faw lu mel ni tam ko tam nit nga xam ne boo ko defee yàq nga aw askanam yàq addunaam ba ba àddunay tukki ñoo ñee ñuy def loolu ñu xat ci àdduna la ñuy doon ñu ñuy xooli bët la ñuy doon tuuma yooyu yëpp kon lislaam da koy xaramal ku ko def nit ndax day yàq ab dar kon yooyu yëpp tere yooyu yëpp ñu tere ku def yi yëpp ak yu ni mel lislaam da ko def ngir bëgga aar derub doomu aadama waaye lislaam yemul ci tere nit ki ci boppam muy def lu yàqu daram yemul ci tuumaal nit tere ku tuumaal nit lu yàqub deram waaye ca boole e, tere itam ku siiwal jëf yooyee bu nit defee lu yàqub deram xam ni ki def na ko lu yàqub deram def na ko mu wóor ne def na ko baa tuumaal nañ ko lu yàqub deram e, kon su loolu amee lislaam day tere ku tuxal xabaar yooyu xabaar yi jëf ji jëf ji ñu def ba noppi ak tuuma ji ñu tuumaal te te dara leeru ca xabaar yooyu lislaam day tere ku ko sottandiku ku ko tasaare ku ko yaatal ndax loola mooy der bu yàqu ba amoon ña ngi koy gën a tasaare di ko gën a yaatal moo tax muy tere ku tasaare jëf ju ñaaw ju ñu def nit bu defee ñaawteef wér na moo ko def nga xam ne moo ko def dañ lay digal yow jëf joojee bu ko boo ko xamee bu ko wax bu ko siiwal bu ko tasaare ndax tasaare ko siiwal ñaawteef la te siiwal ñaawteef dañu koy e, tere bu fekkee ne tam nit ki dañ ko ko tuumaal rek ñaawteef dañ ko ko tuumaal rek su boobaay dañuy tere ku toxal tuuma joojee di ko jottali di ko wax nee nañ diw def na nangam bu ko fee ñu koy jokk jalaate muy gën a yaatu loolu nag nekk loo xam ne ci jamono jii lu yaatu la loolu tasaaroo mooy toxal ay jëfi ñaawteef yu ñu def ba tuumay ñaawteef yu ñu tuumal ay nit ñu ngi koy toxal ci anam gune ñu ngi koy toxal ci ay wax ci ay siiwalukaay fi ñuy siiwale ay wax euh, siiwalukaay yi yëpp xam nañ ko fi ñuy siiwale ay wax di ko wax nit ñi dégg mbaa ñuy wax di boole génne nataal da daa mel ni dañoo boole ci liggéey boobu siiwalaale ñaaw te dañ ko cee boole ba ñuy bindi xabaar bis bu set di ko tasaare daa mel ni dañoo jàpp ne bis bu set waris naa gëstu ñaawteef bu xew ci jamono ñu bind ko ngir ñëpp yëg ko nga xam neewaana tasukaayu xabaar buy bind xabaar te du ca boole ci bis bi jéem a xool ñaawte fu mu dégg na am na baa sos ko sax bind ko ngir nit ñi di ko jàng yamuñ ci loolu ña jotul mbind ma ba di ko jàng ñu leen koy jàngal dina ko yëgal di jàng xabaar yi xabaar yi ñaawte fi yooyu ñu koy tasaare bis bu set ñay waxi xabaar jàpp nañ ne am na ca tomb bu ca war a am boo xam ne mooy tasaare ñawteef seet lu bona bon lu ñaawa ñaaw lu lu lu lu ñëpp di juunulu ñu di ko wax ci siiwalukaay yi bu fekkee bindoon nañ ko ñoo jàngut ñu jàngal leen ko ñu dégg ko ak di jagleel sax ay jataay waxtaan di ko jagleel rek gëstu yi ñaawteef yuy xew ci jamono di ko siiwal loolu di lu yaatoo yaatu loo xam ne ñu bari ci ay tasikaayu xabaar ñu ngi koy def te loolu siiwal ñaawteef la te loolu di da koy da koy da koy xaramal ñu boole ci di ko siiwal ci barab ci fi nga xam ne euh, jokkokaayu àdduna si fi ñuy wax rek fi nga xam ne moom mooy bëtub réew bëtub réew nga xam ne loo fa dugal nataal boo fa dugal mbaa wax joo fa dugal àdduna jépp yëgandoo ko gisandoo ko fa saasa foofu it tàmm nañ fa loolu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 محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ñaawteef mooy wax jëf ju ñaaw mbaa sos mbaa tas mbaa siiwal tuuma ju ñaaw yooyu yëpp kon lislaam da koy tere moo xam bind ko la ci foo xam ne ñëpp dañ cey jot di ko jàng wala wax ko ñëpp di ko dégg wala wane ko ñëpp di ko gis euh, wala fañ ko bind mbaa ñu wane ko fa yooyu it ngay gën koo yaatal di ko tasaare di ko gën tasaare jot ci xabaar bi jot li ko ñeneen ñoo jot li ko ñeneen ñu ko jokk jolaate ba mu daj àdduna te loolu uh, moo xew léegi ñu xam ne yooyu yëpp lu xaraam la lu yàlla tere la xam day jur yàq gu mag a mag a mag tasaare ñaawteef dafa bari ay sikk yu ci nekk bi njëkk mooy yaa ngi tooñ ñaawteef yaa ngi tooñ ki ngay tudd ñaawteefam maa nga tuumaal ko ko too yaa ngi koy tooñ muy bàkkaar bu mag yaa ngi bàkkaarloo ñi ngi koy yëg dégtal ñi ngay dégtal xabaar bi di leen ko wax ñu koy dégg ci seen nopp ñooñu yaa ngi leen di yaa ngi leen di jox ay bàkkaar yaa ngi leen di e, xiir ci ñuy jëf e, bàkkaar waaye itam yaa ngi e, soññ nit ñi ci ñuy def ñaawteef ndax dañoo wax ne al musibatu iza amat hanat bu fekkente ne waxtu ne ñi ngi wax jëf ju ak di wax lu ñaaw mu ne mi ngi xew ba mel ni àdduna sépp dañoo maase ci di ko def su boobaa day mel ni def lu def ñaawteef nekkatul gàcce gu ñuy rus ndax nit la koy rusloo mooy mu def loo xam ne da caa wéet daf caa wéet nga xam bu ko bu ñu ko tuddee ñëpp ëpp seen gémmiñ yéemu waaye bu fekkee waxtu wu ne rek ñi ngi wax ne looloo ngi am ka koy def moom day jàpp ne lii kat kon ku ko defati weetoo ci te kon dootoo ci am gàcce mbaa doo ci am kersa bu ko defee moom bu xoolut boppam ak la muy jur ëllëg mën naa mën naa woyof ci moom am bi ko def rawatina ñaawteef bu fekkee loo xam daa daa taqaloo ak jëmm dañ ko wax ci jëmm jëmm joo xam ne suñ ko tuddee xel dem ci diine baa buñ ko tuddee xel dem ci ku baax ku mag a mag a mag baa buñ ko tuddee tuddaali ab barab bu sell sell sell nga xam ne yow boo gàkkalee jëmm ji weesu nga jëmm ji ba jàll ca diine dañ koy askan jàll ca ku mag kañ koy askan jàll ca barab bu sell bañ koy askan loola yaa ngi jur yàq gu goo xam ne eh, fa muy àgg kenn xamul mu toll ci ab dayo bu defee yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne mat naa bàyyi xel ci di ko moytu ak di ko moytulu ak itam di jéem a xool ay pexe yu ñuy def ba yu mel noonu eh, mën a wàññiku waaye lislaam yamul ci tere nit ki muy def lu yàqub deram ak a tere ku tasaare jëf joojee maa nga di ko tuumaal sax ku ko deful yamul it ci terey joxalante xabaar baag tasaare ko waaye di ca boole teg ay daan tëral ay daan yu diis kiy def luy tax luy luy yàqul daram kii def lu yàqul daram lislaam da koy teg ay daan ngir bëgg mu bàyyi ko moo tax ku njaaloo wala mu jëlee fi jàmbur mbaa mu rey nit mbaa mu def ñaawte bu rëy rëy am na ay daan yu rëy yu ci lislaam di teg yoo xam ne yoon a koy doxal ngir jàjj nit ki ki ko def ak jàjji ña koy dégg ba dootuñ ko defati ñi nga xam ne ñooy tuumaal nit ñi ay tuuma yu yàq seeni darit lislaam a ngay teg ay daan yu rëy ñay def tuuma yooyee moo tax ku tuumaal nit njaaloo euh, am na yar bu ca lislaam teg boo xam ne dañ ko war def kooka ndax ñu bàyyi yàq der nit ñi loolu lépp daf ko def ko ngir aar dari nit ñi ak sàmm ko ci lépp loo xam ne lu koy gàkkal la waaye lislaam yi mu ci loolu da caa boole ñaawteef ci boppam sunu boroom ci boppam dafa jëf ju ñaaw ju yàqut der da koy wane ci wane yu ñaawa ñaawa ñaaw woo xam ne ku am dara cim xel ak yëg-yëg dana ñaaw fi yow ba doo ko def lu mel ni jëw bu koy tere wala yaxtab baadukum baada ay yuxibu ahadukum an yaakula laxma axihi mayitan fakarihtumuh na ngeen moytu jëw bu kenn jëwul moroomam daal di wax na xanaa kenn ci yéen bëggul fekk mbokkam mu faatu mu muy lekk aw yàppam kon ñaawal na jëw niroole ko ku fekk nit ku faatu nga di ko lekk loolu kon melaw ñaawa ñaaw la la ko wane ci la ko wane ngir bëgg nit ki sib ko ba daw ko sori ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam melal na jëw nirole ko lekk meddum mbaam te mu ànd ak ñaar ñooñee ñaari ñaar ña ci ginnaaw di ko di jëw seen mbokkum jullit mu mu ba mu dox ba àgg ci mba meddum mbaam taxaw bañ fekk ko fa mu leen lekk leen ci medd mii ñuy diit diital mu ne leen li ngeen mu moo leen mën ngeen lekk yéen seen medd mi ginnaaw yéen ngi jëw mën ngeen lekk mbaam mu de mbaam mu medd xam nga lekk medd rek dafa xaram lekk mbaam sax bu ñu ko rendi woon xaram boole ñaari aram mooy nekk lekk mbaam mu medd kon ñaawal na ko lool ñaawal yi woo xam ne euh, ku amug yëg mbaa nga am xel danga ko sori kon noonu la lislaam suñ borom di ak yonent bi saa di melale jëf yu ñaaw di ko ñaawal lool lool lool di ko jox melo yu ñaaw yoo xam ne day jegeel ñaaw eh, ñaawug mbir mi ci nit ki ba mën koo sori kon yëpp ay yëf la yu lislaam def ngir sàmm der nit ñi di tëkku itam nag ñi nga xam ne ñooy yàq der nit ñi ak di ko siiwal ci ay mbugal yu mette metti ci alxuraan ak ci hadis kon yëpp war naa tax ñu gën a bàyyiwaat xel ci gii gën cee moytu gën cee waggar gën cee taxaw ay matuwaay ñu ngi tënk fii kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت المحصي على عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أنه الذي لا إله إلا هو شهادة عبد ظهرت طويته وأشرقت بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت أما بعد فيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا توفكون واستغفر الله وله أنيبوا وإياه فراقبوا وبخياركم توسلوا وحرموا حرمات الله وعن الظلم ارجعون ومن المظالم تحللوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الظلم فإنه يعيب العامة كما يشين الخاصة qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiima yarwihi an rabbi yaa cibaadallah inni xaramtu zulma ala nafsi wa jacaltuhu baynakum muxarraman fala tazalamu yaa cibaadi kullukum ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الحمد لله راحم من تضرع بين يديه منيبا وخاضعا وجابر صنع من قصده منكسرا متواضعا لا إله إلا هو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما أصبح مانعا أحمده لا أني أحصي الثناء عليه ولكني أصل ما كنت له بترك حمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا أيها الناس استنزلوا ما عند الله بالندم والاستغفار وقفوا بين يديه وقوف الذل والانكسار فإن من وقف بباب الكريم فتح له بابه ومن استغفره قضى حوائجه ويسر أسبابه وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار جعلني الله وإياكم ممن كان لحديث نبيه الكريم واعيا وفيما وفيما ينفعه يوم يقوم الأشهاد مجدا وساعيا لا يرفع شكواه إلا لمن يكشف بلواه ولا يعلن دعاءه إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين alhamdulilahi rabbil alamin gafara allahu zunubana wa satara uyubana wa tahara qulubana wa yassara matlubana wa aslaha ahwalana wa zakka acmalana wa saddada aqwalana wa xaqaqa fi cafwihi amalana istagfiru rabbakum summa tuubu ilayh inna rabbi rahimun wadud يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 Allah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 allahu akbar asalaamaaleykum